di leen dollee ndokkeel ci weeru màgg yi nga xam ne ñoo ngi ci fukki fan yu mujj yi di ñaan saa boroom mu defal ñu ci eh, tawféex ak lépp luñ ci eh, mën di sàkku di gisal ci nuyoo bi eh, saxaabul fadila Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké ñaan saa mu yàggal ko fi lool ba lépp lum naal ci liggéeyal ko sëñ bi saa boroom defal ko ci kàttan ak tawféex ba mu kawee njort kon ni ñu ko baaxoo xamee euh, fii ci jumaay Tuuba ci weeru koor wi yépp waxtu wuñ jullee tàkkusaan ba am fanweeri minute fas yéene dalal kenn ci woroomi xam-xam yi mu fas yéene ñoo euh, fàttali yee ñu delloo ñu ci sunu boroom tey jii nag bokk ci waxtaan yooyu tànn euh, thème boo xam ne thème bu am solo la tem boo xam ne mënut a ñàkk ci ab jullit muy tem bu bu rëy boo xam ne jullit bi lu mu yittewoo la tem boobu nag day am ak lëkkaloog tem bi nga xam ne defoon nañ ko démb àndoon ceeg sëñ Aafiya Ahmadu Ñang te moo nekkoon euh, tarbiya ruhiya inda Seex Xadim tey ñu war a indi ay bind yoo xam ne dañ koy jukkee ci masaalikul jinaan ci bind yu am solo yooyu nga xam ne day lëkkaloo euh, temub démb bi muy faslun fi rasail bunt boo xam ne dafay jàngale jikko yi caay-caay yi nga xam ne mooy nekk ci xolu jullit bi ñu war cee ànd ak almufattis Cheikh Mahamadou Muntaxa Jatara nekk koo xam ne euh, ku ñu xam la xam le ko euh, du ko jar ndax xam nañ ko ak liggéeyam taxawaay bi mu amee ci yoon wi daa sëkk rek ñu wax ne moom euh, mu fattis la ci di saytu njàng njàng mi ak njàngale mi nga xam ne moo aju ci wàllu euh, Mbàkke ak li ko wër imaam la it ci almasjid bi nekk euh, Daaru naan ba tey it moo jiite école yi nga xam ne ñoo aju ci wàllum majma Cheikh Xadim bi kon bu ko defee tom yi muy fas yéene waxtaan ak ñun mooy bi ci jiitu mooy at tasawuf wa makaanatuhu fi fi fi diini wal gaayatu minhu tasawuf ban wàccuwaay la am ci diine eh, bu noppee ñëw ci eh, taarifu rasail lan mooy jikkoy caay caay yooyu après mu ñëw ci adraaru rasail wa wa ilaajatuha yan jafañ-jafañ la ñuy indil doomu aadama bi ak naka lañ koy eh, saafarawee mu ñëwaat ci xaaj jikkoy caay-caay yooyu yan eh, xeet la ak yan xaaj la su noppee mu ñëw ci teqali lenn ci jikkoy caay-caay ak seeni eh, saafara su ko defee mu ñëwaat ci eh, jeexantal li kon ñu ngi koy ñaan ñaanal ko saa borom may ko làmmiñ wu leer naññ ni mu bëgg a taxawee waxtaan yi mu taxawee ko ni asalaamaaleykum wa rahmatullah al oustaz fadal alhamdulilahi alladi minna talab ixlaasa saayin wa muraacaati al adab wa muraacaata al adab summa alsalaatu maa salaamin yatbacu ala alladi fiina xadan yushafacu man bi fadaa'ili alhudaa taxallaa wa an razaa'ili radaa taxallaa wajal kalaami raashidan wa murshidaa wa fikrati nawwir wa qalbi arshidaa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gannaaw nuyoo bi ak ziyaara bi ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan sunu borom tabaraka mu nangul nu mboolem jaamu yàlla yi ciy jaamu ci ay julli ak taxawaay ay ak i woor nangul nu mbooleem jëf yu yiw yi nga xam ne ñu ngi ko ciy jëf ngi ko ciy jëf noo ngi jiital ci nuyoo bi nag saahibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaqa tey ñaan sunu borom tabaraka wa ci weeru koor gi mu gën a yokk aw fanam lool te gën koo dolli ak wér ak tawfiq ba mu àggale mébét yi nga xam ne am na ko ci yoon wi am na ko ci diine ji di ci jokk rek sunu nuyoo di ko jëmale ci daairatu muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci mbirum jumaa ji di ko yéwénal di leen sant bu baax ci boole gi ñu boole ci liggéey bu màgg bii nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci barab bii di ñaan sunu borom liggéey boobu ñuy liggéey ak nun liñ ciy jéem a bokk yàlla tàbbal ko ci liggéey buñ nangu bi nga xam ne nangu ñaanu sëriñ Tuubaa gi mu wax ne eh, képp ku ko liggéeyal ci barab bi ci benn anam ci anami liggéeyin yépp yàlla may ko ko wax fir li man banaw binaaha rafi wax fir li man amarahum bihi jamii wa li jamii man aanahum ala binaa alladi bi fadlika tala képp liggéey ku liggéey ci jumaa ji rek ca tabax baag yor gaag sàmm gaag lépp loolu leen sëriñ bi ñaanal yàlla nu dal nun ño ak ñoom ñi nga xam ne ñoo koy saytu sunu tomb bi nag ni ko sëriñ bi waxee léegi rek sëriñ loo mooy benn xaaj ci benn bunt ci masaalikul jinaan benn xaaj ci benn bunt ci masaalikul jinaan xam nañu masaalikul jinaan ñetti bunt la ay bunt boo xam ne day wax ci mbindeef yi àddunaak la ci jëm am beneen bind eh, bunt boo xam ne day wax ci jikko yu ñaaw yi am beneen bunt bu mujj bi rek mooy wax ci jikko yu rafet yi ñetti bunt yooyu rek mooy masaalikul jinaan mbindeef yi jikko yu raf ñaaw yi jikko yu rafet yi buntu ñaareel boobu nga xam nag mooy wax jikko yu ñaaw yi dañ ca tànn benn rek waaw daf muy ab fas la ab baab la bunt bi baab la baabul rasail fasl bi nag mooy faslun fii baadi razail wa baadi dawaiha lenn ci melo yu bon yooyu nga xam ne day nekk ci doomu aadama ak yan saafara mooy mën a saafara melo yooyu nga xam ne bu ko nit ki amee mu nekk jàngoro ci moom moom téere boobu nag di masalikul jinaan ngeen xam ne bu am téere bu am xëyma la ci diine waaye rawatina ci tasawuf téere bu am xëyma la ndax sëriñ bi da melal jamonoom jamono yam nekkoon ya ca amoon ci ay melo yoo xam ne yuy jara waxtaanee la yuy jara gëstu la ci diine sëriñ bi di ci waxtaanee melo yooyu daal di mel mel ni ku ñu dañu dañu sigal dañoo won jamono jam nekkoon moom nañ na nit ñi meloon nit ñi nañ doon dundee nañ meloon mu melalal ñu ko wax ñu it buñ ci bëggee bañ a jaar yan saafara lañ koy saafara waaye mu rëddal ñu aw yoon woo xam ne buñ ca jaaree yàlla mën na noo suturaal ba melo yooya duñ ko duñu mel te melo yooya melo la yoo xam ne yàqoon na jamono jooja lool ndax bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn fépp la maanaam ma nga tàmbalee ca buur ya fi newoon ak moom di ay buur yi àdduna di di tooñ nit ñi di nangu seeni alal ñoom it loolee ñu doon def lépp mu wax ca lam ca war a wax critiquer ca lam ca war a critiquer waaye romb nag sëriñ si nga xam ne dañ doon tuddoo ak cëriñ nit ñi fab seen diine jox leen ko waaye ñu jaay diine joojee jëndee ko nit ñi jëndee ko àdduna ba di eh, nekk ci diine nekkin woo xam ne dañuy dundee diine waaye duñ ko dundal dundal ñooñu it sëñ bi wax ca lam ca war a wax critiquer leen bu baax wax mel yañ mel ak ab sëriñ nan la mar a mel ak nan la wut mel loolu it mu wax ci lu lu baree bari daal ñëw nag ci ñi nga xam ne ay dañuy woote woo tasawuf soufisme bi ñuy nekk nga xam ne ci la ñu nekk sëñ Tuubaa ci lay woote am ñu ko doon woote woo booba waaye ñàkk koo xam ak réere ko ak réere ay ponkam waaye ñu dugg ci nag duggiin woo xam ne la mu wax ca beneen bunt ci masaalik war na ku dugg ci eh, manding mandingum tasawuf mas tasawuf am manding la manding mooy àll bu yaatu bu bari ay garab ku ca dugg soobu ca nag te xamoo yoon waa wala amoo ku la ca giide boo watuwut da nga sànku ca biir foofe loolu nag booba nag ñu bari loolu dafa leen a daloon ñu dugg ci tasawuf waaye xamuñu ko gëstuwuñ ko amuñ ca ku leen gide it ñuy tañax tañaxi rek di dem di def loo xam ne wute na ak tasawuf dëgg-dëgg ñoo ñëpp sëriñ bi dafa leen a melal jaño sige leen critiqué leen won ne ne yoon wii ñu aw du yoon woowa wane it yoon wañu war a aw mooy wan yoon wan yoon lañu war a aw kon ci bunt boobu ci la ñuy waxtaanee ni ciy waxtaanee nag mooy ñetti tomb ñeenti tomb wala juróom rek lay doon ba ca jëkk mooy ni ko sëñ bi waxee danañ wax ci tasawuf ak place bi mu am ci diine ndax li ñuy waxtaanee nii muy muy jikko yu ba bon yi dafa dugg ci biir tasawuf kon danañ waxtaanee tasawuf ak ban wàccuwaay la am ci diine fan la taxaw ci diine lan mooy place am ci diine waaye danañuy wax it lan lañ la lan mooy jubluwaayu tasawuf tasawuf bu ñëwee lan la jubloo def lan mooy mission lan la bëgg a def ci nit ñi ak lan la bëgg a dindi ci nit ñi bu ñu ci jógee xam leen lan mooy rasail yooyu nag caay-caay yooyu wala jikko yu bon yooyu mooy yan nan lañ nan lañ koy xamee na la ñu xamee jikko yooyu bu ñu ci jógee wax seeni lor seeni lor ak seeni saafara ndax damay wax ne sëriñ bi loolu la loolu la mënee ñu bari saa bu indee lor wala mu indi ay danger yoo xam ne nekk na ci mbir dafa lay indil noo koy wattandikoo ak noo koy saafara man mel ni docteur bu lay seet ba xam sa feebar waaye du la bàyyi nga dem bay dafa lay jox ordonnance boo xam ne boo ko naanee boo demee sa feebar dana dana dana faju kon dana wax ci eh, mel eh, jikko yu bon yooyu ak seeni seeni saafara mu ñëw nag ci buntu bii nga xam ne moo ñu tax a jóg nag jikko yu bon yooyu dañoo bari dañoo bari mu tànn ca nag yenn yoo xam ne moo ca gën a fés te moo ca gën a rëy moo ca gën a bari mu tànn ko ca moom la moom la wax eh, aqsaamu razail razail yooyu xism yi nga xam ne moom la moom maanaam gannaaw bu jógee ci aqsaamu razail day dugg ci léegi yi nga xam ne nag moo ci gën a fés rasaayil yi nga xam ne moo gën a fés ci eh, eh, jikko yu bon yooyu nga xam ne moom la gën a bëgg melal foofu nag fa la fa la fa la fa la fa lu baree baree baree bari ci jikko yooyu waaye ginnaw waxtu yu matewu ko dañ cay tànn yenn yi ca gën a am solo tam jiital ko rek boo ko defee ñu waxtaanee ko daal di koy mën a misaale cay ca des kon tomb bu ci nekk rek dañ koy wax ci gàttal rek ndax sàmmonte ak waxtu yi su ñu xoolee tasawuf dañuy gis ne diine lislaam ji nga xam ne ci la ñu nekk di ci jaamu sunu borom tabaraka wa taala diine la joo xam ne yàllaa ko yónni jaarale ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jëm ci mbooleem nit ñépp jinne ak malaaka ak ak euh, nit yépp mu jëm ci ñoom lu muy lu muy muy def ci ñoom mooy daf leen di génn ci ak réer jëmee leen ci ak leer lëndëm gañ newoon ba lislaam ñëwagut mu jëlee leen ci nag yóbbu leen ci leer gi nga xam ne moom la lislaam lislaam indi ca loola la ñuy mën a dox ba mën a texe ci àdduna dund fi dund bu neex waaye dem alaaxira it daje fa ak ngërëmal sunu sunu borom tabaraka wa taala te mooy diine yi nga xam ne yàlla nee na ku ma jaamu ci jeneen diine ju jooju duma ko nangu benn diine bu may nangu ku ma ci jaamu duma ko du ma ko du ma ko nangu te moom du diine jooju képp mooy diine ji ma considéré diine ci man inna diina indallahi lislaam wa man yabtaxi xayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasiriin moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne diinun siwa islaamihi laa yuxmadu inda al ilaahi wa bihi ji mooy diine joo xam ne yàlla gërëmul benn diine bu dul moom laa yuxmadu inda al ilaahi wa bihi nujaddidu diine jooju nag moo ma tax a jóg nag moom laay yeesal man lu ngeen gis ma di ko def ak ma di ko wax yeesal diine yi lislaam jooju yàlla gërëm moo ma tax a jóg buñ ñu xoolee nag diine jooju nag dafay séddalikoo ñetti xaaj maanaam diine dafa yaatu waaye bu ñu ko mënee tënk rek ci ñett lañ koy tënk na ko yonente bi sallallahu alayhi waxee woon ci hadisu jibril bu bu siiw boobu ba ko ma jibril wàccee soppaliku jëmm di ko laaj lan mooy lisla liimaan lan mooy lislaam lan mooy lixsaan ñett yooyu yépp nga xam ne mooy diine diine ñetti xaaj la lisla liimaan mooy li ñuy gëm ci xol yi kenn du ko gis waaye ci xol lañ koy gëm lislaam mooy li ñuy feeñal ci cër yi di ko jëfee julli yeeg woor yeeg asaka yeeg yépp mooy lislaam lixsaan nag mooy li nga xam ne mooy taaral yooyu moo koy sellal liimaan bi lu mën a mel lislaam ji lu mën a mel bu lixsaan ñëwut sellal ko sellal nga am ca day mel ne amul njariñ yooyu yëpp du am njëriñ moom la Sëriñ Tuubaa wax ci mën a mën a euh, tasawut subaan ne wantabihu fi anna diin allahi aqsaamuhu jiimun bila shabaahi diine daal ñetti xaaj dong la awaluha al imaanu wal islaamu baadahuma al ihsaanu laa tanaamu mooy liimaan ak lislaam ak lixsaan noonu ko addis bi waxee mu ne fa awalun yasixu bi tawhidi bu njëkk bi moom tawxid moo koy wéral imaan coow li lu mu bari bari moom it wéetal yàlla jox ko ab cëram bañ koo boole kenn rek mooy mooy liimaan wéetal yàlla jox ko ab cëram bañ koo boole kenn yeneen la ca aju lépp day dëgëral loolu rek wasaani bi tafaquhil majidi lislaam nag mooy lan mooy fiq mooy jàngale lislaam moo lay wax jaamu yàlla yi la yàlla digal nan nga koy defee ba boo ko defee yàlla nangul la ko julli yaag woor yaag asaka yaag dem makka yaag saraxa yaag topp waajur yaag yépp yooyu yépp ci biir lislaam la dugg mooy fiq moo koy jàngale waaye ñetteel bi nag mooy tasawuf lañ koy xamee lexsaan tam bu ñu koy jàngalee dañ koy jàngalee ci tasawuf dañuy jàngalee islaam fiq iman tawxid ihsaan moom it dañ koy jàngale ci al at tasawuf mooy jàngale lislaam moom moom tasawuf moom nag bu ñu ko xoolee dëgg-dëgg dañuy gis ne rek mooy ihsaan te ihsaan mooy ixlaas ihsaan mooy ixlaas tasawuf mooy jàngale lisla lihsaan lihsaan nag mooy lan mooy al ixlaasu lillahi tabaraka wa taala an taabud allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak booy jàmm yàlla nga sellal ko mel ni mi ngi lay gis nga xam ne bu loo boo ko boo ko gisut tam mel ni mel ni yaa ngi koy gis yow yaa ngi jàkkaarloog moom waaye soo ko gisut moom xam nga ne moom mi ngi lay gis moom kon loolu mooy sellal mooy ihsaan bi nga xam ne mooy ñetti xaaj yi ñeent ñetteelu xaaju diine yi mu ne imaan boobu dafa mel ni moo ruux gi dafa mel ni lis euh, diine jëmm la imaan mooy ruux gi ruux lu am solo la ci nit bu amul ci nit rek di su ko tuddee nit waaye bu amee ruux gi ba noppi tam lislaam mooy jëmm ji ak ruux day ne ci jëmm lu naaw ni ci jaww ji rek waaye bu nee ci jëmm ji ba noppiit it nag balañ koo tuddee nit nit balañ koo tuddee nit dana am ak ruux dana am jëmm waaye bu solut ay yére kenn du ko tuddee nit nit ko nit ñi ñi nga fekk ci mbedd yi yàlla nattu leen jël seenum xel am nañ ak roo am nañ jëmm waaye dañoo amut ay yére moo tax tuddewuñ leen nit moo tax lislaam joo xam ne liimaan euh, diine joo xam ne am na liimaan am na lislaam waaye amut ihsaan duñ ko tuddee diine comme ni nga xam ne ki am xelam dem duñ ko tuddee nit dañ ko tuddee leneen itam noonu la mel kon lexsaan li muy représenté ci diine ji mooy mbub mi ngay solal diine ji ba taaru ba rafet ba mel ni nga xam ne ni biir bi mel biti bi mel ni bu ko defee lépp lépp lépp dëppoo kon buntu boobu moom la ñu sëriñ bi di leeral ndax lu tax sëriñ bi di ñu leeral buntu boobu maanaam sëriñ bi dafa dafa indi jikko yu bon yi door a indi jikko yu baax yi baabun fil rasail la indi doo doo indi baabun fil fadail yu bon yi la njëkke ci yu baax yi loolu lu ko waral te nit ñi dañuy defe ne lu bon lu baax la war a njëkk a xam waaye loolu li ko waral mooy day mel ni mbir mi ab xolub doomu aadama ndab la ndab ndab lu ñuy def lekk rasail yi mooy taq-taq yi nga xam ne mën naa ne ci ndab li xolub doomu aadama ndab la rasail yi mooy takk taq yi yi nga xam ne mën naa ne ci ndable fadail yi muy jikko yu baax yi mooy ñam wi ne ci ndab ndable mooy ñam wi ne ci li soo amee ndab nag bëgg a fab ñam wu sell def ca waaye ba nga cay laata def ñam wu sell fekk nga ca ay taq-taq yu bari boo ca defee ñam wa lu mu bari bari kenn du ko jëriñoo kenn du ko jëriñoo kon xol lu bari bari ay jëf lu sell sell ay jëf te taq-taq yi nekk ca mooy ñam wu jaxasoog ay taq-taq rek kenn du ko jëriñoo ak lu mu neex neex ak lu mu bari bari looloo tax sëñ bi jiital nag raxas ndab li nañ raxas ndab li muy xol bi nañ ko raxas ba mu set bëcc ba nga xam ne loo ca def ci aw ñam lu mu tuuti tuuti ñu mën koo jariñoo lu bari bari ñu mën koo ndax dara toqu ci looloo tax kon baabul rasail boobu am solo lool ndax mooy mooy raxas ndab li daal bala nga cee def dara baril ay julli baril ay woor baril ay azaka baril jëf yu baax baax na lool waaye nag na fekk ndab li koy def na nga ko raxas ba mu set wécc dara lu koy taqal du ci nekk bu dikkee rek dana jariñ rasaayil yooyu nag nga xam ne mooy jikko yu bon yi dafa dafa am lor yu bare bare bari yoo xam ne sëñ bi daf koo daf koo boole maanaam rasaayil yu feeñ yeeg yi nëbbu yeeg yu ndaw yeeg yu mag yépp lor yi ñuy am ci doomu aadama daf koo boole globaliser ko lépp nag wax la ne la lii mooy loru ay rasaayil ak lu mu mën a rëy rëy ak lu mu tuuti tuuti rek lii mooy ay loram ba ci jëkk ci lor yi mu ne kasratuha tufdi ila saqaawa tufdi ila ma man a inna razaila min azunubi muurisatun xasaabatal xulubi nee na bàkkaar tooñaanga yii ak jikko yu bon yii li muy waral ci nit bu ca nekkee day wowal ab xolom day wowal ab ab xolom te wowub xol lu muy tekki mooy nit koo xam ne du waaroo léeg nga gis nit koo xam ne du waaru li ñuy wax nii bu koy diglu ay kasaw kasaw lay doon ci moom day yàkkamti mu àgg ba mu jóg dem ndax safu ko dara ñam la wax ne sëfu ko dara moom ndax rasaayil yi ne ci moom bon bon yi ne ci moom moo tax li ñuy wax sëfu ko day diis ci moom day day day metti ci moom day yàkkamti ñu jeexal ko ba ba ba jàll ca leneen bu ko defee mu sori yërmande yàlla nag kooku nag foo ko fekk mooy koo xam ne bon bon ya ak jikko yu bon ya dafa dajaloo ca xol ba ba mu am reynul qalb kallaa bal raana ala qulubihim maanaam bon bon yi boo defee eh, eh, bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw lu mu ci mën a doon day def ab tomb ci sa xol beneen ñëw nekkaat ab tomb bu ñëw rek xol bi dafa set wecc mel ni kayitu weex bakkaar bu ñëw ab tomb bu ñuul lay doon bu ñëw nekk tomb bu ñuul bu ñëw nekk tomb bu ñuul tomb yu ñuul yi nag bu baree lool day mujj mu muur ko lépp bu ko muuree lépp nag noo koy xamee mooy lu baax duutu la saf kooku lu baax duutu ko saf duutu waaru am na am na ci nit ñi ñu ngeen xam ñoo xam ne bu ñuy wax lu baax danañ toog diglu ko bu buñ mënta toog ñàkk a toog déglu ko dañ toog déglu ko waaye dara safu leen ci li ñuy wax dara safu leen ci bu demee it du am benn jeexit ci ñoom ndax dañoo toogoon rek di dégg waaye tooguñu woon di déglu dégg ak déglu bokkuñu ñun ñëpp ñu ngi dégg waaye ñiy déglu ak ñii dégg bokkuñu kon jeexit du ko am ci moom li ñuy wax du am benn jeexit ci moom ndax xol bi muuru na day mel ni aw doj rek wooy sotti ndox dara du jàll aw doj wu wow koŋ nga di ca sotti ndox dara jàll mu dellu waxaat ne it bokk na ci lori bakkaar yu bari ak melo yu bon yooyu melowoo ko wa shu'umuha yakunu za ta'ajjuli qabla mamaati man xawaaha ajali nee na lorom fii la la ko yàlla wonee bala ngaa dellu dem ëllëg lam lay dencal ëllëg moom ma la ko dencal boo ko fekkee waaye bala ngaa génn àdduna bii dana la ca won lu bari lori bàkkaar yooyee nee dana la ca won lu bari yonte bi sallallahu alayhi wax na ko ci benn hadis ne maa min zambin ajdaru an yuajjila allahu li saahibihi al uqubata fi dunia maa maa yudaxiruhu lahu fi l axira min al baxyi wa qatiati rahim ay mooy yàlla yoo xam ne mooy bew ak dog ak bokk ay mooy yàlla la yonent bi nee na amul lu yàllay gaawee ak payam fii ci àdduna balaa dem alaxira ci bon bon yooyu muy bew ak bokk te bew ak ak ay ay bakkaar lañ ci bakkaar yi rek kon bakkaar yépp la bëgg a wax bakkaar yépp sunu borom tabaraka wa taala su te sax loolu muy ki mu bëgg ki mu bëgg lay feeñal loo xam ne ci àdduna dana ko xupp ba mu jàjju dellu gannaaw waaye kam bëggul moom da koy jaay rek sanastadrijuhum min haysu laa yàlla ya'lamuun da leen di jaay rek ñuy jaayaxu rek di noos rek di dem rek di dem rek dara du leen jot dara du leen jot ñu naan waaye ñiy def lu bon moom lu tax dara du leen jot waaye lool yàlla daf leen di jaay di leen di jaay di leen yolomal rek di leen yolomal rek beneen leen népp jeex na foofu la ñuy noppi xamante bànneex waaye yow mi nga xam ne yàlla bëgg na la nag booy def ay moy yàlla daf lay mosal ca moy ya dara ay nattu yoo xam ne da koy gis xam ne lii mooy yee ko waral nga ndax nga jajju dellu gannaaw bala nga àgg foo xam ne dootu mën a dellu dellu gannaaw kon lor fii ci àdduna lañ koy tàmbulee door dem alaxira nee na it nit kuy defi bàkkaar yu bari li koy jot ci ay nattu li koy jot ci ay nattu du balaa niqma la maanaam merum yàlla la neq ma ak neex eh, eh, balaa nuróowuñ neq ma mooy li ngay def yàlla yàlla mere la ba won la ci meram mon won la fii ci àdduna meram ci ay nattu yu lay nattu bu dee balaa nag moom yàllaa koy teg nitam jaamam la koy teg bu mu bëgg sax la koy teg jaamam bu mu bëgg léeg-léeg nga gis nit ku bëgg yàlla nit kuy topp yàlla nit kuy jaamu yàlla yàlla di ko teg ay nattu loolu kenn du ko tuddee merum yàlla waaye dañ koy tuddee nattub yàlla nattub jullit day yokk ay maqaamaam baa muy ñaaw teef bi sub nga xam du ñàkk moom natt bi moom faw rek mu jariñ ko yokk ay darajaam ci yàlla wala mu wàcc ay ñaawteefam fa sunu borom tabaraka wa taala kon li koy jot fii ci ay nattu merum yàlla la moo xam ne daf koy daf koy daf koy xuppee borom kii def natt yi ba mën a dellu gannaaw ba gaaw a génn ci yooyu nga xam ne moom la doon moom doon def bu ko yàlla bàyyee ca yooya nag ànd ak mu di ko xéewal di ko may ak njaboot di ko may alal mu ne makrun ma ji zil arshil na naam den loolu la am njayal la daf lay jay daf lay jay di la bàyyi rek ngay dem rek di la bàyyi rek ngay dem rek waaye bis bu àggee fam fam fam fam fam jëm ak yow nga xam ne agsi na wahum lii lahum inna kaydi matin daf leen ndànk rek ba ci man rek yonte bi sallallahu wax na ko ci benn hadis mu ne boo gisee ab jaam yàlla di ko jox ànd ak mu di ko moy yàlla du ko jox li bëgg lépp tam di ko moy fa innama huwa istidraaj loolu mooy njaayal ak njaayal la daal di jàng aaya bi nga xam ne sunu borom da ci wax ne ba ñi nga xam ne dañuy moy bañ nekkee ca moy ya ba fàtte yàlla ak luy yàlla rek ñu fàtte ko defe ne loom àdduna moom nii lay mel foofu lay mel fatax naa alayhim abwaaba kulli shay mu ubbi leen bunti àdduna yépp lu ne ma moy leen waaw xatta isa farixu bañ bëgg ba defee ne ndaqar duutu amati ci àdduna naa axasnaahum baxtatan ma bett leen fa nag ak sama mbugal ma bett leen fa ak sama sama sama mbugal fa isaa mublisun kon gis nañu mooy yi lor yu bari la am waaye la ci gën a am solo mooy lori démb ëllëg moom nit mën na koo bañ a gëm ndax àggaguñ fa waaye àdduna jii la ko yàlla commencé ak yow te loola mooy ki yàlla bëgg lay def loola yow mi bëgg bëgg nga wàññiku yow la koy def waaye kam bëggut moom yoonam néwut ci moom bëggalu ko dara alaxira moom daf koy bàyyi rek muy def la ko neex mu di ko may lam bëgg di ko may lam la muy sàkku di ko xéewal di ko alal di ko may ak njaboot di ko may lépp muy wël rek àdduna bépp mu wër ko waaye nag bis bu yàlla jotee ci moom dana xam ne yàlla rek mooy yàlla kon mu ne bul xeeb benn bàkkaar kon benn bàkkaar rek laa tax xar abat zamban benn bàkkaar bu ko xeeb benn waaw walaw xal la lu néew néew rek fa baadar li samat gaawal ci tuub ko waaw tuub gu sell waaye dooyam ci tuub ko rek tuub naa tuub naa daal di toog ne tàggin waaye la nga defoon da ngay fexe ba kafaara ko innal xasanaat yuzhibna sayiat sayiat la nga defoon ci ay ñaawteef danga koy tuub fas yéene dootoo ko defeti waaye da ngay fas yéene def yu baax yu ko wuutu dangay def yu baax yu ko wuutu loolu mooy tax bakkaar ya far ba set wecc dara dootu fa des ndax ku ku far say bakkaar te defoo dara tam doo am dara ku yàlla jégaloon say bakkaar ndax xam waaye defaloo ko dara nag tooñ nga ko mu jégal la loolu moom yow loolu doy na ci yow waaye loo ko defal moom ba yaayoo nag ak payam ba mu di la fay du yàlla du caagin ku yàlla jégal rek daf lay fayee àjjana waaye yàlla bu la jégalee moom naa daf laa gën nga tooñ ko mu baal la waaye loo ko defal ba mu war laa dugal àjjana nag loo ko defal ba mu war laa dugal moo tax sëñ bi ne da koy tuub ba noppi nag kafaara ko na nga def lu koy far yooyu nag tudd na ca julli ci yonent bi sallallahu alayhi di bari looy julli ci yonent ba pare ay bakkaar koy tuub tey bari looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi loolu defe naa li ci Sëñ def kenn xamul mu toll xasida yi nga xam ne yépp salaatu ala nabi la jaalibatul maraqib taysirul asir xasida yépp amul benn xasida goo xam ne salaatu ala nabi nekkul ci biir kon ku koy jàng rek yaa ngi def salaatu ala nabi te nee day far ay bakkaar salaatu ala nabi ak taxaw guddi naafila guddi waaw waxuma la sax weeru koor waaye nit ñëpp tëdd tata jaafaa junubuhum anil madaaje ñëpp tëdd nga jóg jàpp ba sell julli doonte ne ñaari rakka képp la ne la li gën a mën a far ay bakkaar ci la bokk ak liggéeyal waa ju baax wa xidmatin wa xidmati wa xidmatin li kulli saalihin muti jaamu yàlla bu baax bu sell buy topp yàlla nga dem di ko liggéeyal nga dem di ko liggéeyal ku mel ni Sëñ Tuubaa nga di ko liggéeyal bokk na ci liy far ay bàkkaar fa lu man ni aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara ku ma liggéeyal rek wala nga ziyaara ma rek nanga ko jéggal te baal ko ay bàkkaaram kon liggéeyal waa ju baax ju mel ni moom ak keneen loolu bokk na ci li nga xam ne dana defar ay bon bon yoo xam ne nit ki defoon na waxuma la sax liggéeyal ko waaye toog ak ñoom rek toog ak nit ku baax rek toog ci jataayam képp jataay ba rek boo ci toogee boo fa jógee dana la kafaara lu bari ci bàkkaar yoo xam ne yoroon nga ko ulaayika al qawmu laa yasxaa jalisuhumu yaksibuuna mu muridina saadat nee na am na gaa yu baax yoo xam ne ku toog ak ñoom rek dootoo texee di mukk toog ak ñoom rek boo ko defee dootoo texee di mukk kon ndeke waxuma la toog ak waaju baax waaye noonu it safaan bi ne la mel nag toogak ak waaju safaanu moom it boo ko boo toogee moom noonu ngay mel ni ngay jariñoo ci kee noonu ngay loru ci kii bokk na ca it yi koy yi yi yi nga xam ne danay kafaara bakkaar mooy jéggulu yàlla jéggulu def astaxfirullaa lu bari moom it gis nga xasida yi li ci sëñ bi wax fu ne sëñ bi wax dafa astaxfirullaa astaxfirullaa astaxfirullaa ba am na ay xasida yoo xam ne sax at tawbatu nasu rek la jéggulu rek la ay xasida yi yoo xam ne loolu rek lay lay jariñ dëpp bakkaar boo xam ne rek ni a koy def rek tudd ko ca di ko di ko jéggulu sunu borom tabaraka wa taala rawatina nag nee na njéggulu gi gën ci njéggulu yi nag mooy saydul istixfaar allahuma anta rabbi la ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika mastatatu aouzu bika min charri ma sanaatu abuu laka bi nimatik alay wa abu bi zambi faxfir li fa innahu laa yaxfiru sunuba illa ant jéggulu googu nee na mooy sayidul istixfaar jéggulu yépp moo ci gën mu ngi ci téere yi bu ngeen ko xoolee ci téere yi dangeen ko gis mu doo ko wax sayidul istixfaar rek boo ko bindee mu génneel la ko sayidul istixfaar mooy gën ci njéglu yi naka noonu salaatu tasbiix am na ñu koy wax salaatu tasbi aw ak aw julliin la woo xam ne ni da koy julli ngir mu faral faral ko ay bakkaaram waaye nag ni ñu koy defee nii ci jamono bokkut ak loolu ni ko xam ne da ngay def loola neex di def loola neex di def loola neex ba benn bis rek ñu ne nañ def salaatu tas bii nga def ko léegi ba yëgal nañu ma samay bakkaar daal di commencé waat loolu amul njëriñ boobu julli amul amul benn benn jaamu yàlla boo xam ne da ngay jégalu yàlla def ko rek mu faral la sa bakkaar yépp nga continuer waat di defaat loolu amul njëriñ salaatu boobu moom amul njëriñ waaye salaatu tas bi mooy yow ci li nga war a nekk nga ne waaye doomu aadama daa amut daa am ay rëcc rëcc rëcc yooyu ngay am nag te yàlla la ko bindee ngir sag lompañe ngay dem ba yàgg nag nga julli salaatu tas bi ci benn bis bu ne wala nga julli ko semaine bu ne wala nga julli ko ci at benn yoon wala nga julli ko sax ci sa dund sax benn yoon wax na waxee sax salaatu boobu salaatu bu am solo la boo xam ne moom it nit ñi danañ koy danañ koy faral di jëfandikoo mu dem ci beneen tomb bi ci des mooy mu séddale nag jikko yu bon yi nga xam ne moom la doon tudd mu am lor yi mu am nee na ñaari xaaj la ñaari ñaari xaaj yi jikko la jikko yu ñaaw yoo xam ne dafa feeñ ñëpp di ko gis dafa feeñ ñëpp di ko gis ak jikko yoo xam ne dafa nëbbu moom yow yàgg yàlla rekk ko xam yow xam nga ko yàlla xam na ko muy ñaari jikko yu feeñ ak yi yi nëbbu mu ne li war ci mukallaf nag mooy mu mu wattu yépp la war a wattandiku ya feeñ ak yi nëbbu yépp kuy mukallaf te amum xel danga ko war a wattandiku da ko war a daw nga ne ko misaalal ma jikko jikko yu ñaaw yi nga xam ne dafa feeñ mu ne ka xiibatin namimatin wa kasibi wa xaanisi yamini wa taassubi wa zuuri wa alfahsha wa ma laa yaani min qawli aw fiilin wa ma laa yuxni wa saayi wa nasri lil xaraami wa kullu ma qabaxa fi kalaami yu bare bokk na ci gën a am solo mooy jëw wax sa morom boo xam ne la nga ko wax bu ko déggoon du ko neex nga teg ci moom baat boo xam ne su ko déggoon te tamit dëgg la nga wax ci moom dëgg la comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defee woon Aïcha radiyallahu taala anha benn jigéen da ko romb boo xam ne mbubb mi dafa gudd bay buubu mu ne ak ah, kii de mbubb mi gudd na lool bay buubu yonent bi ne ko waccul mu waccu génne lumbu deret wu rëy mu ne ko kii bu reesoon ci yow mënuma laa tee dem sa war a mbubb mi dafa gudd rek kepp te effectivement mbubb ma dafa gudd waaye mu wax ko rek yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ne ko boo ko boo ko faatoo woon kenn mënu laa yóbbu àjjana loolu loolu jëw la naka noonu nag ñun nag li ñuy def bis bu set nag ñun nekk ci dari jàmbur yi bis bu yàlla sàkk bis bu yàlla sàkk la gën a ñaaw la gën a doy waar ñu nekkee ko ci dari jàmbur yi loolu ci ci bakkaar yi gën a mag la bokk te bakkaar yi feeñ la bokk namimatin rambaaj moom it ci la bokk rambaaj xam nga jëw moom bokk na ca bon nga rek mooy yàlla da ko misaal nit kuy lekk moroomam nitam booy jëw nit mi ngi mel ni aw yaramam ngay dagg di lekk ni loolu ñaawee noonu jëw ñaawee suñu borom tabaaraka wa taala noonu la ko misaale ci alxuraan waaye rambaaj it mooy tuxal ay wax jële ko ci nit yóbbu ko ci keneen ngir bëgg a yàq seen diggante ngir bëgg a yàq seen diggante rek waaye nag dafa gën a garaaw nag ci jamono ji ñu nekk ndax jamono ji ñu nekk moom rambaaj dafa yomb appareil yi ñu yor rek yépp mën na sa cee def rambaaj yu baree baree bari waaw di di di xaw ma nu ñu ko tuddee euh, euh, euh, partage waaw partage waxi jaamur yóbbu ko ci keneen kee yóbbu ci keneen ke yóbbu ci keneen kee yóbbu ci keneen damay wax ne partage li ko tax a gën a bon ci àdduna mooy yow mi ko jot muy lu bon gësoo ko suul nga partage ko kenn nit nga ko partagé de kooko partagé ko téeméer téeméer bi partagé ko junni junni bi partagé ko ñaari junni ñaari junni yooyu lu ñu am ci bàkkaar yow mii ko njëkk a am nga bàkkaar bu toll noonu bakkaar yooyu yëpp ñi ko partagé ñëpp ak fu ñu ci mën a partagé bakkaar yooyu dañ koy boole yow mii njëkk yow da ko am loolu tax jumtukaay yooyu di jumtukaay yoo xam ne niñ ci mën a amee lu baax la gaaw a mën a amalee nit lu bon ndax dañ daan wax rambaaj ñaari nit koy def nga xam ne da jógee ci kii rek dem ci kële mën naa doon sax ni ñu soree wala ni ñu jege waaye léegi nag fi nga toog ci sa biirum néeg ngay toog di rambaaj ci sa biirum néeg ngay toog yor sa baaraam rek di bës di wax ju da nga toxal ko jëmee ko ci ñeneen loo xam ne bu jëmee fa jëm dana fa yàq lu bari loo xam ne yow mënatoo ko defar ak wax lu amut wax lu amut wax joo xam ne dëppoowut ak dëgg li nga wax nii dëppoowut ak dëgg te loolu nit ñi defatuñ ko muy dara waaw yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na nee nañ ko ab jullit dana njaaloo mu ne waaw ab jullit dana naan sàngara mu ne waaw ab jullit dana nang mu ne waaw ab jullit dana fen mu ne déedéet jullit dëgg dëgg dëgg du fen ndax day bakkaar bu rëy te mooy wax lu dëppoowut ak dëgg lu dëppoowut ak li am sunu borom taw ko taala wax na ko fu ne ci alxuraan bañ ko lool ñaawal ko lool jikko yooyu yëpp ñëw na ci alxuraan ñëw na ci sunna ay aayaaki addis yu baree bari yoo xam ne lu ne wax na ko ca waaye temps bi du ko du ko du ko maye ak lépp lu bon nag ci ay wax ak jëf jëpp wax ju bon yépp jëf ju bon bokk na ci yi nga xam ne ci euh, bàkkaar yi ma bon yi ci la ci la ci la bokk waaye wo yëmut ci rek wax lu bon wala euh, jëf ko waaye bind ko sax bind bind bind nii comme mm, SMS yi ñuy def SMS yi ñuy def bu ñu waxee bind moom SMS la SMS bi nga bind lu bon juddoo ca dem feneen moog li nga wax ci sa làmmiñ ñooy am waaye SMS bi nga jàng itam keneen yónnee ko nga liir ko moog moom bi nga bind ñooy am yow bi nga bind ak bi nga liir. ak bi nga diglu ñoo kepp képp ñoo yem képp yéen ñëpp yéen bokk ci bakkar bi te kenn ku ci nekk sa wàll ngay am nag du fekk sa wàlle sa wàlle sa wàlle moroom kon loolu moo tax watandikuloo moom it ak tuur dereti jullit rey rey doom aadama rey dereti jullit ku dul jullit sax ab zimmi yi dañuy tere ko ko rey koo xam ne dafa nekk ci biir jullit yi am ak ñoom jàmm si ñeente ñoom jàmm loru leen defu leen dara soo ko reyee mook jullit bi nga rey ñooyam kon deret si doomu adama dafa araam inna amwaalakum wa inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum nit ñi seen seen seen bakkan yi ak seen alal yi dafa araam ci ñépp lu dul fa ko yàlla soxlaa ñu defee ko fa yàlla la mu digle ci alal ci doomu aadama ñu ñu ñu faat ko wala alal ñu sànk ko lam ca digle loolu yàlla dong lam ca digle képp lañ ca sañ waaye keneen sañu kenn sañ ca sànk alal jàmbur kenn sañ ca jël bakkarub jàmbur ci lu dul ci lu dul ci lu dul dëgg ak yu mel noonu yépp nag lépp cëpp jëpp jukko ca ca ca mujj ga dafa ne wa kullu fasidin min al muamala bépp jëflante bu ñaaw bépp jëf te jëflante bu ñaaw yow mën naa xam du caageen da ngay diglu aaya bi wala ngay diglu addis bi rek door a xam ne ñaaw na waaye yow mi ko def boo waxtaanee ak sa conscience da nga xam ne lii nga def rafetul lépp loo xam ne boo waxtaanee ak sa bopp rek yéen ñaar képp kenn doonu ca dara boo tëddee ci sange day xam ne lii ma def day baaxul wala lii ma wax de baaxut loolu moom yàllaa ko bindee doomu aadama saa bu defee lu lu juunu su tëddeeg boppam rek yedd boppam bu ko boppam yeddee rek kenn du dégg nag yéen ñaar rek a loolu moo lay xamal ne lii kon baaxul kon bépp jëflante bu ñaaw rek waree sa ko watandiku ci yu mel noonu ñoom ñëpp yooyu may wax yëpp nag muy feeñ bakkaar yu feeñ yooyu nag ak mooy yàlla yu feeñ yooyu bu ci nekk am na aaya wala addis boo xam ne moo koy dëgëral moo koy gën a wone waaye kon jataay bi du ko du ko du ko du ko du ko maye mu daal dem ci li gën a am solo nag mooy ar rasailul batina jikko yu bon yi nga xam ne nag moom dafa nëbbu ci biir la ne du feeñ ci beeñ mu ne ama rasailu lati qad batanat fa hiya uyubu nafsi xaysu wujidat moo yooyu moom mooy ay bi bakkan yi feebari bakkan yi feebari xol yi nee mooy ay mooy rasaayil yi nga xam ne dafa nëbbu feebari xol yi xol day feebar waaye bu feebaree bari na ñoo xam ne duñ gis nit ki xam ko ci moom lu dul ay mandarga yoo xam ne moo koy wane waaye moom ma nga ci biir xol ba ma ngay feebar danañ wax yi koy feebar buñ ca buñ ca agse moom nag bakkaar yooyu nag lor ja moom da koo teele nee na yuxsha ala man kaana fiihi jaazima walan yatub lillaahi suul xaatima kuy def bakkaar yooyu yu biir yooyu nga xam ne moom dafa nëbbu danañ ko xam ci kanam nee na ne ci yow te jógut ci yow nee na ragal nañ nga am mujj gu ñaaw ku nekk ci yow te tuuboo ko ba demaale ko mujj gu ñaaw ngay ngay ngay ngay ngay mujje sa mujj du rafet mujj gu ñaaw nag nit ñi dañ koy def lu ne jàpp nañ lakk ci sawaraak wala euh, lap ci ndox ak yooyu yëpp dañuy jàpp loolu du mujj gu ñaaw déedéet. waaye mujj ñaaw mooy lan mooy mu mu mujj ci mooy yàlla dee ci ak mooy yàlla ngay ngay mooy yàlla ba dee ba dee ca te tuuboo ko loolu rek mooy mujj ñaaw ngay mooy yàlla nekk ci ak mooy yàlla ba ca te tuuboo ko loolu mooy mujj ñaaw waaye yeneen yi yëpp dogale yàlla rek la waaye du dara nee na ku ku ku ku dëkk ci ay mooy nag te te wutandi ko woo ko nee yàlla dana la nattoo mujj ñaaw jamono ja ngay faatu dangay ngay faatu ci loo xam ne kenn bëggul ku ca faatu dangay faatu ci loo kenn buggut ku ca ku ca faatu ndax ak mooy yàlla la du lab ci ndox du lakk ci sawara yooyu yëpp du mujj ñaaw waaye mujj ñaaw mooy mooy dee ci mooy yàlla waaye nee na jàngoro biir yooyu nee na wa hiya min zahiratin ashad wa hiya min kaana ashad nee na jikko yu bon yooyu moo gën a tar yu zaahir yi jikko yu ñaaw yi ñu doon wax nga xam ne yu zaahir la rambaaj ak jëw ak nangam ak nangam li ñuy bon bon bon nee na jikko yu baatin yi moo ko gën a bon jikko yi nga xam ne ci biir lay ne nee na moo moo gën a bon waaye min zaahir kaana ashad li kawniha tulaazimu nafsa abad ndax yii moom dafa taqoo yow xam nga rambaaj ak jëw ak yépp mën ngaa teqale ko moom bàyyi ko dem fële waaye lii moom sa bakkan la nekk ci sa ci sa xol la ne bon bon yoo xam ne moom da ngay ànd ak moom foo jëm ma nga ànd ak yow muy dem loolu tax mu garaw li annaha tulaazimu nafsa abad mu ne nag jikko yooyu nag li ñuy ñaaw ñaaw bari na bari goo xam ne kenn mënu koo wax ci benn jataay waaye li ñuy ñaaw ñaaw ñett eh, eh, fi ñuy jóge li koy waral ñetti mbir rek la nee ñetti mbir rek masdar bi ñetti mbir la ñetti mbir yi mooy yan nee na ba ca njëkk mooy bakkanu doomu aadama dafa bañ topp yàlla doomu aadama bakkan bi ko yàlla bindal dafa bañ topp yàlla bëggu ko neexut ci moom topp yàlla neexut ci moom nga bu ca jëmee rek seytaane da koy daldi won ne ko ba ko bu ko def xam nga julli mu lu yomb la ñeenti am na ñoo xam ne li ñuy daj moo gën a metti julli junni yoon waaye jullee leen gën a diis wa innaha la kabiratun illa alal xaashiin julli dafa diis ci ñi nga xam ne ragaluñu yàlla dafa diis ci ñoom te am na la ñuy def lu ko gën a metti fuuf waaye duñ ko yëg ndax bakkan moo moo moo bañ topp yàlla bakkanu doomu aadama waaw moo bañ topp yàlla so nee so soo soo soo su su bakkan bi bañee topp yàlla waaye nga not ko ba dem topp yàlla bul julli bul julli la lay wax nga not bakkan ba ba dem julli julli rek bul woor nga woor bul dem makka nga dem makka bul sàkk asaka nga sàkk asaka léegi mënatu ci dara mënatu ci dara léegi mu ne la kon njistal ko gaawee ko gaawal julli gi daal gaawal muy buy sànq sa temps yaa ngi bàyyi sa bitig bi tëj ko di julli fii te ba eh, client yaa ngay daw daw nangam ak nangam kanam kon gaawal rek gaawal waaw fexe fexe na ba moom mënu ñàkk a julli waaye bi ngay julli it mu ne la gaawal ko gaawal ci julli gi boo ca bo wala mu ne la def ko waaye sal ko di ko won nit ñi di ko won nit ñi nga xëy da koy def waaye ngir nit ñi gis ko rek moo tax waaye yàlla taxut li ñu gis ko rek moo tax nga di ko def waaye yàlla yàlla taxut soo muccee ca loolu lépp julli nga njistaloo wonoo ko nit ñi lépp mucc nga ca mu ne nag léegi nag ah yow nag jàmbaar nga ah yow ko jàmbar nga yow sa julli gii yow da xanaa àjjana nga jëm nga daal koy naw naw sa jëf naw sa jëf oj waaw te ñu bari ci noonu dañuy dal dama dem ba defe ne mucc nga nit ku dem ba defe ne mucc nga man daal àjjana man garanti naa sama àjjana nit kuy wax loolu da nga yàlla parce que loolu mooy oj bu defe ne defal nga yàlla lu baax lu jar mu fayee la ajana amut amut nit ku defal yàlla lenn lu lu jar mu fayee la ajjana yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam waxal na ko boppam nee na amul kenn koo xam ne sa jëf mën na la yóbbu ajjana ñu ne koy ba ci yow mu ne ba ci man illa an yataxamadinillahu bi rahmati lu dul yàlla yërëm ma rek laa yaakaar waaye sama jëf yaakaaruma ci dara kon kenn wërta jëf jën seetaane noonu la lay jaayee nee na ñett yooyu mooy mbir yi nga xam ne mooy mooy indi ak mooy yàlla dalay bañ loo topp yàlla boo ko defee mu njësal loola ko boo ko defee mu yéem loolu ko bu ko defee jëf ci yépp yàqu jëf moom boo ko yéemee rek yàqu na dara dara baaxatu ci kon sëriñ bi nag ne soo xamee loolu nag dara du la musal lu may xam jikko yu bon yooyu nga fas yéene koo xam te faj saafara ko ba yàlla seetal ci sab sab sa sab xol nee na bokk loolu bokk na ci li nit gën a war a itteewoo waaye min azami ma min min azami waaye min azami ma abdun raamabtara bi rabbihi fantabihi nee na loo sàkkoo jege sa borom rek xam sa sikki bopp moo ci gën a baax xam sa si jàngoro biir yooyu nga xam ko ba saafara ko nee na loolu moo gën a baax ci li ngay li ngay sàkku lépp nga ne ko ah nu ma koy xamee nu ma koy xamee mu ne la mën nga ko xamee ci yoon yii wastafidan irfanaha yaa saaxi bi soxbatil mashaaiqil nasa nu saaxi del ànd ak nit ñu baax ñi waaw sëriñ su baax si nga xam ne ay jikko yu baax la yor ne la del ànd ak ñoom booy ànd ak ñoom rek danañ la xamal say jikko say jikko yu ndax ab sëriñ ab docteur la ab docteur sëriñ bu mat sëriñ ab docteur lay doon boo jàkkaarloog moom rek mu xam yow mii lan mooy sa jàngoro sëriñ bu mat sëriñ boo jàkkaarloog moom rek doo ko wax dara boo jëfee wala nga wax wala nga def rek mu xam lan mooy sa jàngoro sëriñ bu mat sëriñ dëgg-dëgg sëriñ Tuubaa loolu daana ko def maanaam ñi daan ñëw ci moom am na ci ñoo xam ne ay xam-xam yu bari lañ yoroon ay kaang lañ woon ay fóore lañu woon ay waaye dañuy yor ay jikko yu ñaaw yoo xam ne kenn xamul sax nu muy àndeek xam-xam ak nu muy àndeek alxuraan bu ñu ci moom rek bu ñu waxee wala ñu jëf rek mu xam ne ñii seen bakkan seetagul seen bakkan seetagul bu ko defee am na ci ñoo xam ne da leen di def da leen di baleloo am na ci ñoo xam ne dafa leen di yalwaanloo am na ci xam ne dafa leen di am na kenn ku ne xam sa jàngoro seet saafara sa koy saafara mu saafara looloo tax ni mu doon yaree wuute ndax jàngoro yi ñi koy seet si dañoo wute ay jàngoro ñi koy seet dañoo wute ay jàngoro ab docteur bu matee docteur ba mu doon du doyaagan ku ñëw rek mu bindal la benn ordonnance waaye kenn ku ne day jañu si nga xool la xam lan mooy sa feebar kii lée ko jot bopp bi métti la kee tànk ba la kee loxo ba la kee biir ba la kee lenn bokkuñu ak sa moroom lu koy saafara sëriñ bu mat sëriñ dëgg-dëgg noonu lay mel sëriñ bu mel noonu nag boo dee ànd moom dana la xamal sa jàngoro yi jàngoro yi wala ngay ànd ak say xarit yu mati xarit sa xarit bu mat xarit nee na booy ànd ak moom yor jàngoro yu mel nii su fekkee xarit ga ga muy woote dëgg la ci moom dana la ko wax dan boo gisee ci yow lu mel noonu mu ne la yow mii kat jikko ji war nga ko bàyyi baaxul kooku moom sab xarit la dala yéene lu baax moo tax mu du la ko wax waaye léegi jamono yàqu na yàqu goo xam ne am na ñoo xam ne ku leen wax loolu ñu ne kii daf maa yab daf maa yab rek lay wax te lu baax rek la bëggal sab xarit la wala muy sab noon sax nee ba tey da nga ko xamee ci sab noon li say noon di wax ci yow wéetalal sa bopp xam li ñuy wax dëgg la wala déet yow xam nga ko yow yaa gën a xam sama noon bii li muy wax dafa maa bañ di wax rek wala li muy wax dëgg la kon da nga ko xam ci sab xarit da nga ko xam ci sab sab noon waaw da ko xam ci sab noon kon yooyu yëpp ay ay ay ay piste la yoo xam ne nit ki mën na cee jaar ba xam ay ayibu boppam ànd ak nit ñu baax ñi ñu mat sëriñ ñu xamal la sa ay bi bopp ànd ak say xarit yu baax yu mat xarit ñu wax la sa ay bi bopp ànd ak say noon wala nga jaxasoo ñoom ñu di la wax sa ayib di la xas dañ lay xas ñoom waaye li ñuy xasee yow xam nga dëgg la wala du dëgg xam nga ci dara bu dee dëgg nga fas yéene koo faj bu dul dëgg amul solo bàyyi mu dem mu ñëw nag sëñ bi rek bi mu ñu waxee yooyu yëpp da xaaj yi ne yi yu feeñ yi ak yu nëbb yi yëpp waxal ñu it yu nëbb yi moo gën a garaaw yu feeñ jàngoro yi nëbb moo gën garaaw jàngoro yi feeñ xamoon nañ jàngoro yi feeñ yan la muy jëw ak yooyu yëpp limoon nañ ko bi ñuy lim yu feeñ yi nag moom la def bunt bii yooyu nëbb yi bunt bi nga xam ne moom la ñuy jàngat tey bàkkaar yu nëbb yi la ciy la ciy wax seen lor ak xamle leen ñooy yan ak bu la dalee noo koy saafara mooy bunt boobu nga xam ne bu faslun fii baax baadi razail wa baadi dawaa dawaa iha yooyu nag moom lañu mën nañ ko tuddee ay kabair bakkaar dafa am bakkaar bu mag ak bakkaar bu ndaw sunu borom tabaraka wa taala moo ko waxal boppam in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum bakkaar yu ndaw am na yu mag am na bu ngeen bàyyee yu ndaw yi rek ma baal leen yu mag yi wala bu ngeen bàyyee yu mag yi rek ma baax leen yu ndaw yi bakkaar yu mag yi bu ngeen góorgóorloo ba ba ko ma jéggal na li ci des nu ko fir an kum sa yaatikum boroom xam-xam yi nag wuute nag am ñoo xam ne ñu ne bakkaar bu mag mooy lan ñu ne bakkaar bu mag day am ñoo xam ne dañ mëneesu koo lim ni mu toll mëneesu koo lim bari na ba mëneesu koo lim waaye dañ koy melal melal ñu ne bakkaar bu mag mooy lan ci melal muy bépp bakkaar boo xam ne yàlla wutal na ko ab sanction fii ci àdduna bépp jëf bépp ma yàlla goo xam ne yàlla def ne ku ko def nañ la def nangam fii ci àdduna bàkkaar bu mag la ku njaaloo nañ la dóor ku xas nit nañ la dóor ku naan sàngara nañ la dóor ku nangam nañ la ay xuduut yoo xam ne fii ci àdduna lañ koy defalee nit ki xam ne yàlla ko tudd ne ku def nangam nañ ko def nangam ku def nangam nañ ko def nangam loo gis yàlla wax lool rek bàkkaar bu mag la loo gis yàlla wax lool rek bàkkaar bu bàkkaar bu mag la am ñu ne ah kay mën naa amul lim ñu ne ñu lim ko muy ashruun ñu ne ñaar fukki bàkkaar mooy bàkkaar yu mag yi kabairu zunub sëñ Tuubaa wax na ko ca Munawwir Sudur kabairu zunubi ishruuna badat amma nuquluhum sayhatul adat nee na bàkkaar yi ma ngi juróom fukki eh, ñaar fukki bàkkaar la ñaar fukki bàkkaar yi daf koo séddale cër yi am na bàkkaar yoo xam ne loxoo koy def am na yoo xam ne làmmiñ a koy def am na yoo xam ne nopp a koy def am na yoo xam ne eh, gimiñ a koy def am na yoo xam ne pëye koy def am na yoo xam ne xol a koy def da ko séddale yépp yooyu yooyu yëpp xam nañ ko bakkaar yi xol di def ak bakkaar yi yi loxo di def sàcc ak euh, yeneen yi ci dese yëpp bakkaar yi nga xam ne euh, do tànk koy def dem fu ñuy fu araam dem ci foo xam ne dañoo araamal ko fa dem bakkaar yoo xam ne nopp koy def diglu lu araam bakkaar yoo xam ne gimiñu ko def mooy wax lu araam gis nga ko bakkaar yëpp dafa séddalikoo ci biir waaye nag nee na am na ci ñeent yoo xam ne xol a koy def yooyu nag moo ci gën a garaaw nee na ishrun yooyu am na ci ñeent yoo xam ne moom xol moo koy def yi ci gën a garaaw mooy yooyu nga ne ko yooyu mooy yan mu ne ñooy ñeent yi may bëgg a tudd bari na waaye ñeent yi mu ci gën a garaaw alkibru wal ujbu wal riyaau wal xasadu ñenn ñeenti bakkaar yi mooy ndey bakkaar yi ku ci mucc mën ngaa mucc ci yeneen yi ciy des waaye ku ci am benn mucc dana la jafe mooy rëy naw sa bopp wala sa jëf kañaan ngistal ñenn ñeenti bakkaar yi yoo xam ne moom ku ci am benn rek yëgal ne am nga bakkaar bu garaaw garaw boo xam ne boo ko fajut lam lay jural moom musiba lay doon yeneen bakkaar yi ci des mën naa ñëw gannaaw lool ko lan mooy rëy mu ne la rëy day moo gën a rëy ci bakkaar yi moom fal kibru azamu razaili jamii ñu ne rëy moo gën a moo gën a rëy ci bakkaar yépp li an na yàq yaqdaxu fii diinil muti ndax rëy moom day yàq diine rëy day yàq diine iblisa dàqoon a jaamu yàlla ñépp ci malaaka yi la bokkoon dàq jaamu yàlla nit ñi bokk ci malaaka yi dàq jaamu yàlla waaye ba mu réyee rek la ko yàlla génne ci boppam usjudu li aadama fasajadoo illa isa aba wastakbar dafa bañ rëy ne man maa ko gën aadama mii maa ko gën nga demal ko sujjóotloo du ma ko sujjóotal dafa rëy kon rëy moo gën a bon ci bàkkaar yi nee na yeneen bakkaar yu dul rëy nag day yàq rek ah, jëf waaw day yàq jëf day yàq diine day yàq jëf waaye jëf jëf moom rëy moom day yàq diine yeneen yeneen bakkaar yi ci day yàq jëf rek mu yem kepp nga ne ko luy rëy rek rëy moom yonent bi ko firi rëy ñu bari dañ koy wax te xamuñu doon waaye eh, yonent bi sallallahu alayhi dañ ko laaj luy rëy muy al kibru batrul xaqi wa qamtu naas ñaar rek la rëy mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi bañ dëgg ak xeeb nit ñi bañ dëgg mooy nit koo xam ne am na dëgg gu muy nangu ak gum du nangu dëgg sàngam daal bu jógee ci nàngam waa ji toog fii daal di waxtaan tey rek nit la koo xam ne daal man joxuma ko benn importance kon dëgg gu jógee ci moom amul solo te dëggu yàlla la wax yàlla lay wax wax yonent bi lay wax waaye moom jëmm ji ngay xool ba ñàkkal ko solo daal man kooku ay waxam safuma kon dëgg gi nga xam ne mooy weddi dëgg di ko jañ boo doon boo doon werante sax bu dugg feeñee nga ba nga lànk ne ginnaaw diw sàngam du ma moroomam ba mu ne ma wax dëgg te la wax dëgg la xam nga ne dëgg la yoo xam nga ko nga jañ ko rek bañ waxamtu naa sax mooy xeeb nit ñi xeeb nit ñi woyofal leen nga xam ne dal tegoo kenn fenn da ngaa nit ñi yow ci classe bii nga bokk ñi ci biir la ba bokk am na ñoo xam ne jataay bii bu ñu yëgoon ne diw ngi fi diwa ngi fi diw ngi fi rek ñu dal di ñëw léegi toog waaye bu ñu xamee ne ñun ñii rek ñoo fi nekk dinañ waxee ay euh, nangam nangam lañ ñu ne ah foofu day ña fa nekk amuñu solo waaw weesal nañ set bopp toog ci yenn jataay yi donte na lu baax a fa nekk waaye ñi ngi ñi ngi xool ñi fi toog ñu mu doon ña toog ci jataay ba ñu doon ndax boroom mbubu yu rëy lañ ndax borom daraja yu rëy lañ ndax borom tur yu rëy lañ bu ñu ko doonee mu jëkk bokk bu ñu ko doonul du bokk mu bokkul dafa bari lool ci nit ñi lekk dafa bari lool te yàlla da koo bañ lool yàlla moom rëy moom li mu gën a bañ ci la bokk innahu laa yuhibbul mustakbirin yàlla nee na man bëgguma ñi rëy bëgguma leen nit ñi rëy nee dama leen bëggul sopp mu leen sopp leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu xab misqaalu zarratin min kibr nee na lu toll ni zarra aw fepp suuf lu ni toll lu tuutee noonu ku mu nekk ci sab xol ci rëy nee na doo tàbbi ajana kenn du ko tabale ajana misqaalu zarra lu tol ni fépp ab zarra zarra sax moo gën a tuuti fépp fépp damaa xamul nu ñu koy waxee ci wolof waaye lu toll ni fépp suuf wala lu ko gën a tuuti koo xam ne deyaale nga ko ci rëy yonte bi sallallahu nee na du dugg ajana mukk ndax yàlla yàlla def na rëy maa ko moom sama mbubu la man rek maa ko sañ sol ku ko bokk ak man rek ma tabal la ajana te kenn du ko faj ku ko bokk mbokk ak man alkibriyaa u ridaa yi waaw wal asamatu isaar yi fa man naazaani minhuma ah, adxaltuhu aljannata wala ubaali ku ma xëccoog moom ci ñaar yooyu danaa la dugal sawara adxaltuhu naara wala ubaali danaa la dugal sawara te faalewuma kenn ci loolu kenn mënut te ma dugal sawara kon kon rëy lu lu ñàkk sol la lu mat a watandiku la toroxlu wàcce sa bopp xam ne doomu aadama dong nga waaye sëriñ bi nag wax ju nag la koy saafara mu ne li koy saafara nag mooy nga xam ne mbindeef yépp a yem fa yàlla ñoom ñëpp yàlla da leen bind ci aadama ñoo bokk benn maam kenn gënul sa moroom lu dul ci ragal yàlla képp lañ mën a gënantee waaye bind bii moom mënuñ cee gënantee moom ndax fa fañ jógee fenn la nee na bokk na ci li koy saafara nga ngay jàng li ci yàlla wax tëkku ko ci ku rëy ku rëy li ci yàlla wax ci ay tëkku li ci yàlla wax ci ay mbugal boo ko dee jàng di ko ko dana dox sa diggante ak ak ak ndax nee na rëy moo alagoon iblis comme ni ma ko waxee woon rëy ibliis dara aragu ko lu may rëy moo dàqoon a jaamu yàlla ñëpp waaye ba mu rëyee rek la yàlla yàq jëfam yëpp waaw mu ne mu ne doomu aadama buy rëy dafa seetluwut boppam ndax nit koo xam ne ñetti étape yi rek ci la toll nee na bi nga bi ngay li la amal li tax ngay doomu aadama lu ñàkk solo la nee li tax nit nit ñi li tax ñuy doomu aadama lu ñàkk solo la nutfatan mazirata toq bu ñàkk solo ci ci la nit jógee waaye bu demee ba nekk nit it fu mu mi nga ànd ak lu ñàkk solo yu ñàkk solo yoo xam ne kenn bugg koo tudd waaw waaye su demee ba génn àdduna it ah jiifatan xasira medd mu xasaw lay doon nit koo xam ne fii rek nga nekk fii nga fii nga jógee bi nga bi ngay am fii nga nekk bi nga fi jógee fii nga jëm ñetti ñetti étape yi rek ci nga nekk ne kooku ko looy nawee sa bopp ba defee ne dara nga lan ngay réyalee sa bopp ba defee ne dara nga man ni ko sëñ bi misaalee boo ko doon boo ko doon wax ci olof day mel ni lu ñaaw la te noonu la ko waxee day mel ni lu ñaaw la waaye noonu la ko waxee ngir bëgg doomu adama yëg ñàkk solo gum ñàkk solo su fekkee tan ak ragal yàlla nekkul ci moom jëmmi kese ji rek ni mu ñàkkee solo kon mu ne kon yéen ñëpp da ngeen xam ne ci doomu aadama doomu aadama ngeen ci aadama ngeen jóge antum banu aadama fii ma utliqa wa huwa min tiini turaabi xuliqa yéen ñépp ci aadama ngeen jóge te aadama moom ci suuf la ko yàlla bind suuf si yi ngeen di dëgg rek ci la ko yàlla bind kon rëy lu ñàkk solo la loo xam ne ku ko xam ci sa bopp wala nga yëg ci dara te néewaa na ku ci amul dara fexeel ba loo man nga xeex ko bam dañ ci dañ ci yow ba ca tegu mooy naw sa jëf oj bu al ujb mooy naw sa jëf mooy nga def ak jaamu yàlla lu baax ba noppi naw ko ba jàpp ne mën na laa musal mën na laa musal comme ni ma ko waxee léegi am na ñoo xam ne dañaan man sama àjjana garanti naa ko wala man wóor na ma ne man àjjana laa jëm nit kuy toog di wax loolu te dema ko àjjana fàtte yàlla moom nga xam ne fàtte nga yàlla jàpp nga ne yàlla moom moo matul dara yow daal sa jëf moo lay moo lay tabal àjjana ngir réyal goo ko réyal fala tuzakku anfusakum yàlla nee na bu leen naw seen bopp mukk bu leen sellal seen bopp mukk bu leen ne man ku sell laa man lu baax laay def man lu baax laay am bu leen ko wax fala tusaku anfusakum bu leen jàpp ne da ngeen a baax damaa baax dañ la koy waxal waaye doo ko waxal sa bopp maanaam même même saxaaba yi nga xam ne ay ay ay ay nit ñu sell lañu woon waaye bañ demee ba jëf ay jëf ba yëg ca seen bopp jàpp ne ñoom ñoo def yàlla defut yàlla daf leen seetaan cib xare jihaad ba ci jihaad seenuk bari ak seen i ngànnaay ak seen force ñu daal jàpp ba jàpp na ñoom seen force bii ak seen ngànnaay yi moo leen tax a gañe yàlla leen déedéet wa yowma xunayn is ajabatkum kasratukum falam tuxni ankum shay shay'an wa daaqat aleykum al ardu bima raxubat suma wallaytum mudbirin suma ansalallahu sakinatu ala rasuli bañ demee xunayn xeex bu metti la woon waaye bañ demee ba jekk yéefar yi daal di jàpp na di yëkkati seen i mbagg nag jàpp ne ñoom seen bari gi ak seen xerañ gi ak seen ngannaay yi moo tax ñu àgg foofu yàlla leen déedéet fa lam tuxni ankum shay'an loolu jërëjëtu leen dara wa daaqat aleykumul ardu toog ngeen ba defee ne suuf si xajatu leen ci amul leen fu ngeen taxaw yéefar yi topp leen war leen lu ne te dara waralu ko lu may yéem ko yéen seen bopp ba defee ne seen jëf moo leen di musal moo leen di musal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen wattu ñett ñett a ngi nii yoo xam ne day alak nit bu njëkk ba mooy soxun taa nay nay gu ëpp ne day alak nit wa mu taba topp sa banneex lu la neex rek nga ne ca doo wàññi ko wa ijaabul mari bi nafsihi ak yéem sa jëf naw sa jëf naw sa jëf def benn jëf boo xam ne jaamu yàlla la wala lenn lu mën a doon la ba nga naw ko defe ne mën na laa mën na mën na laa musal comme noonu ma ko waxee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam man sax sama jëf du ma dugal ajjana man sax sama jëf mënumaa dugal ajjana ñu ne ko loolu lay dugal ajjana mu ne illa an yataxammadanillahu bi rahmatihi yërmande yàlla rek yërmande yàlla rek loolu nag am na ñu koy ñu koy ñu koy jël ci beneen côté boo xam ne booba taxut ñuy wax a jëf mënta dugal nit ajjana yërmande yàlla daal moom la dugal ajjana kon man du ma jëf déedéet loolu taxut ñuy wax ki ki tax ñuy wax mooy ki jëf lu ne def lu ne ba sukkandiku ci loolu rek defe na loolu moo ko yóbbu ajjana waaye ki defut moom kooku kenn waxalewu ko moom moom bokkul ci rang bi moom moom moom moom feneen la jëm yow jëfoo dara ba noppi nag léegi ah yonent bi nga nee na yërmande yàlla mooy tabal kenn kenn kenn mënut a dem ajjana ci sa jëf kon man bu ma jëf dara déedéet kenn mënut a dugg ajjana ci sa jëf kii jëfut dara nag moom fan lay jaar ki jëf jëfa mënu koo dugal ki jëfut defe mën naa dugg moom waaye ki jëf ba noppi nag naw jëf ci nag ba jàpp ne mën na koo dugal kooku moo tax ñuy ñuy ñuy wax mu ne eh, wa minhu wa min alamati ictimadil bil amal naqsu rajahin indi wujaani zalal nee na bokk na ci gis sa bopp mooy sukkandiku ci sa jëf sukkandiku ci sa jëf yaakaar ko ba boo xawee eh, am tarxiis bu tuuti sax daal defe ne jàpp dem nga sa war xam nga koo xam ne boo defee mooy rek da yàlla def nga sawara ye yooyu mooy mooy mooy mooy naagu naagu yërmande yàlla ba defe ne loo def ci bàkkaar rek dem nga sawara bu yàgg kooku ku koy def danga ngaa ne boo defee lu baax mën na la yóbbu àjjana kon bul naagu bul amal yaakaar te bul naagu amal yaakaar te bul naagu fal jamu bayna al xawfi wa rajaai xayru sajaayaaka bi lam tiraai Sëñ Tuubaa nee nag boole ragal ak tiit soo defee lu baax ba noppi da nga daan ah man de li ma def baaxul ndax boo demee nangam a ngi ci nangam a ngi ci nangam a ngi ci ngistal a ci nangam a kon dara baaxu ci fu ma fan laa jëm waaye nga dem ba rek ay ma yërmande yàlla yaatu na na ma ko nangul fal jam u baynal xawfi war rajaa diggante boobu rek nekk di ragal yàlla di yaakaar di ragal di yaakaar di tiit yaakaar diggante boobu rek ngay nekk nee na bari na topp ko topp yàlla goo xam ne nit topp na ko yàlla ah, waaye alag na ko ndax ba mu ko yéemee la ko arag waru ba taatin ilal ijaabi addan muti an doonal rijaabi fa saara haalikan bi adlillahi yàlla day maandu ci sa jëf boo boo jëfee ba noppi sukkandiku ca yàlla day maandu ne la waaw yow yow sa jëf jii nga yaakaar ne moo lay yóbbu ajana man man génn naa ci jëf ji yow kaay ma rek léegi yow sa jëf ji yow da nga maa jullil da maa wooral waaye tànk yi nga ma yi nga ma defalee lii loxo yi nga ma ko defalee gimiñ gi ma ko defalee jëmm ji nga ma ko defalee lépp maa la ko bindal sant góoma ci nga defal ma ci dara bëgg fay la ci wala nga yaakaar sama pay kon yàlla moom kenn mënu koo defal dara ba jàpp ne defal nga ko dara mënoo def dara ba jàpp ne defal nga yàlla dara ndax li li li nga ko defalee li ngay naw moo la ko defal sant googu ci loolu sant googu matagut nga de ko nawaat ngay nawaat leen loo ne defoon ko mu ne sëñ Tuubaa ne léegi nag yéemu nag lu koy lu koy lu koy saafara mooy jaam bi day xam ne jëf jii mu jëf moomu ko yàllaa ko moom julli gii nga julli woor gi nga woor aj gi nga aj makka saraxe gi nga saraxe li nga def du sa jëf jëfi yàlla la moo ko jaarale ci yow moo la ko moo la ko tàggatalal moo la tàggatal li nga def ba nga mën koo def waaye waxuma loolu sax waaye mën nga koo def ba noppi waaye yàlla nanguwu ko na yumkin an allah yuqbala yàlla mën na ko bañ a nangu da yëg ne yow defagoo defalagoo yàlla dara wa ana ma sa taqsiri dangay ngay yëg ne man daal defalaguma yàlla dara yaa daq julli ñëpp yaa daq woor ñëpp waaye nga wéet sa bopp ne man daal defalaguma yàlla dara ndax yàlla lim ma defal bari na bari goo xam ne mënuma koo defal dara ba fay ko mënuma koo defal dara mu ne kon bari na jaamu yàlla gu bari goo xam ne benn gendiku rek benn coup lañ koy wax coup d'œil maanaam nga jaamu yàlla ba ba xool ko rek xaw koo xool rek mu yàq jaamu yàlla gépp xaw mu yàq yàlla daa yambaxi lil abdi daawa azama qurabihi li rabbihi si naama kon ab jaam wërta màggal ay jaamu yàllaam ab jaam wërta réel ay jaamu ba defe ne mën na ko musal day wéeru ci ci ci ci yërmande yàlla rek mu ñetteel bi mooy njissal moom nag lu bon a la moom njissal moom ndax moom day yàq lépp loo mën a def lu mu bari bari bari bu ànd ak rek yàlla bëggatul dañu moo gën a fiir ñëpp moom bëggut a bokkoo kenn kenn kenn ak lenn loo ko defal boole ko ca kenn rek suur na loolu loo ko defal boo ko ci boole ak kenn rek suur na ko te Sëñ Tuubaa sax daf ne mooy sirku asxar di ko yonent bi waxee nee na riyaa ngistal nee na bokkaale bu ndaw la bokkaale ni màggee nga ne yàlla nee na dana lépp ba des bokkaale te yonent bi nee na ngistal bokkaale yàlla la gu ndaw bokkaale gu ndaw la ndaxte lu tax mu bon mooy laa yanfaul ilmu wala al ibada bil ah, laa yanfaul ilmu wala al amalu ma riyan fa man xawaahu faddura jama nee jëf xam-xam la wala jëf ju baax la du am njëriñ mukk bu ànd ak ngistal jëf lu mu bari bari ak xam-xam lu mu bari bari bu am na ngistal nee du jëriñ dara borom ndax sunu borom tabaraka wa taala ci alquran nee na fa waylun lil musallin nee na alkande kambug sawara ñeel na ñiy julli ñiy julli waxul ñiy julli wudde waaye ñiy julli la wax sawara ñeel na leen nga ne ko ñooñ ñoo ñan mooy alladina hum an salaatihim saahoon mooy ñi nga xam ne bu ñuy julli ñi ngi julli teew fii waaye seen xel a nga fure ña nga Amérique ña nga France ña nga feneen ña ca euh, cantine ba ña nga ca nangam alladina maanaam duñ teewlu ci seen julli bu ñuy julli duñ teewlu nga ne ko ñaan ak ñan mu ne alladina hum yuraauuna wa yamnauna al maawun bokk na ca mooy ñooñu mooy ñiy njësal ci seen seen i jëf ñi nga xam ne bu ñuy jëf dañuy njësal di ko won ñeneen maanaam ñi ngi xalaat ñeneen ñu dul yàlla ci seen i jëf ñi ngi xalaat ñeneen yàlla ci seen jëf mu ne mu ne ni nga koy misaalee nit ki njissal di won ñeneen jëfam ñu dul yàlla ku dul yàlla nee na mi ngi mel ni nit ku am or bu foor bu gànjaru mën koo jaay ci ay junni junni junni junni ay milliers milliers waaw ay mille mille mille nga ko mën a jaayee nga dem jaay ko ci benn koppar benn fistin nga am luy jar ay junni dem jaayee ko benn fistin mooy nga am luy loo xam ne fayog yàlla nga ca mën a am nga dem jaay ko mbindeef bi nga xam ne da nga bëgg mu gis ko rek mbindeef bi rek nga bëgg mu gis ko nee na sama borom bu bu yomal xeemee nee na day indi ñi doon gisal ne leen dem leen ca ña ngeen doon gisalal ñu fay leen man yorelu ma leen dara ña taxoon ngeen di dem leen ca ñoom ña taxoon ngeen di def dem leen ca ñoom te bu boobaa moom yow koo jëm mu daw la yow may sin yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa abihi ko yaay ji sax bu demee ci doom ji mu daw ko ne ko man tëlu ma la baay bi daw doom ji soxna si daw borom kër bi kenn tëlul kenn ñu ne nag demal ci ña nga doon sal ñu fay la te ñoom yoruñu dara moo tax gisal garaaw trop ndax da ngaa fekk lu lu rëy nga jaay ko ku ñàkk solo ku amul dara bàyyi fa ki nga xam ne moom yor na lépp te mën na lépp kon lu mat a watandiku la loo xam ne euh, waaye rek li ci gën a xoromu xaw ma waxtu bi dana ci xajam déet li ci gën a xoromu mooy sëñ bi dafa feeñal ay xeeti njissal yoo xam ne dafa sew dafa bari ci nun lool te yëgunu ko sax léeg-léeg duñ ko yëg nee na bokk na ci njissal ngay jaamu yàlla ngir jege yàlla loolu nag daraja la nit dana jaamu yàlla ngir jege yàlla loolu lu baax la waaye nit ci yàlla foo xam ne du yàlla ngir lenn lu dul xam ne daa war a jaamu yàlla rek jaamu yàlla rek la yàlla daal ku war a jaamu la dama ko war a jaamu waaye jaamu yàlla ngir daa am ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla ngir bëgg ay xar baax dañuy jaamu yàlla ngir bëgg yàlla ubbil leen ay buntu dañuy bëgg yàlla loolu lépp booba da ngay bokkaale yaa ngi bokkaale ndax lii ngay def moo la tax di def lii lii nga bëgg moo la tax di def lii jaamutoo yàlla jaamutoo yàlla de wala sax koo xam ne day jaamu yàlla ngir àgg ci yàlla man ne bëgg da bëgg àgg ci xam nga yi dañuy defe ne daana ci barab boo xam ne da ngay dox àgg ci rek jox ko loxo mu jox la loxo te àgg ci yàlla du dara lu may sa lépp nekk yàlla loolu mooy àgg ci yàlla nit koo xam ne léppam yàlla la lu mu def rek yàlla la cay gis loolu rek mooy àgg ci yàlla lu mu def rek yëngutoom dalam léppam yàlla la lu mu def rek yàlla qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin laa sharika la kooku ma àgg ci kooku ma àgg ci yàlla nee na bokk na ci njisal mooy ngay def dara ngir bëgg nit ñi màggal la bëgg nit ñi màggal la wala nga bëgg nit ñi yëg la yëg la bari na ci nit ñi ñoo xam ne ñi ngi jaamu yàlla ñi ngi julli ñi ngi woor ñi ngi nangam am na ci ñoo xam ne sax dañuy ñàng ñàngulu ba nga xam ne nit ñi dañu di teg ku baax maanaam ngay nga nga nga sol yére wala nga kaalawu kaala goo xam ne jubluwoo ca topp na wala dara waaye danga bëgg nit ñi xam ne yow mii ab jaamukatu yàlla nga nee loolu rek gisal am na ñu bari ñu koy def nga xam ne bu bu bu ñu yoroon kaala fii tey nit di ñëw rek ñu daal di fab kaala tegaat ci kaw bi na ko misaale ci misaal sax dafa dafa ñàng nee nit ñoo xam ne dañuy dañuy jinne jinnalu ay nit ñoo xam ne dañuy jinne jinnalu ngir nit ñi teg leen nit yàlla loolu am na nee na bokk na ci gisal ngay def dara loo nga nga bàyyi dara loo xam ne lu baax la ab liggéey la wala dara la am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañoo jombale seen bopp yenn yi te yu baax la ay jëf yu baax la maa ngi koy maa ngi koy misaal rek sëñ Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud ndeysaan yàlla koy dolli euh, xéewal da ko misaal ci misaal moo xam ne ci wote yi wote yi wote yi ñuy wote mu ne mu gis koo xam ne ak kilifa gu mag la mu dem wote yi gis ko ca rang ba muy rang di wote te muy ku mag nee na ma naw ko lool xam ne kii xam na moom lan mooy def def lan mooy jëf jëf ju baax jëf ju baax mëtt a rus wote mëtt a rus jëf ju baax la mën nga ko def am am ci yoolu ma gis ko ci rang bi muy rang ma gën koo naw xam ne kii moom xam na boppam waaye am na ñoo xam ne rusuñ ko man ma taxaw fii kii taxaw ci sama gannaaw kii taxaw ci sama kanam nangam ak nangam loolu du ñii waaw bu fekkoon ragale nañ fa ay moroomam rek mu di ko wote bu fekkoon rang bi dafa am rang boo xam ne moom ñii moom ñii ñoo fi taxaw bii ñii ñoo fi taxaw ba mu bokk moom bu ko xamee day ñëw taxaw foofu waaye nag ginnaaw rang mi ñëpp ko bokk man foofu moom doo fa taxaw ñooñu duñu samay morom jëf ju baax joo xam ne ju ñuy amee ngërëmal yàlla la nga bàyyi ko nit ñi ne loolu bokk nañ ci sal loolu bokk nañ ci sal waaye ba ca gën a rëy nag mooy di di sant ngir am ngir am ndollan wa shukru listizaada xam nga def ne bu ngeen ma santee ma dolli leen waaye nee na képp koo xam ne léegi sa jëf yépp bëggoo ca lu dul yàlla dolli la li ngay sant yàlla daal bëggoo lu dul yàlla dolli la rek nga bëgg yaa ngi bokkaale yàlla dañ ko war a sant même bu la dolli wutoon ndax lim lay dolli ak cant la waraat waaye ba mu la dolleegu ti daa yooyoon ak sant ba mu la ba mu la dolleegu dara daa yooyoon ak cant te bu la doolee dara day ak cant bu la doolee waatee yooyaat ak cant doo denc cant mukk maa doo doo doo layoog yàlla mukk ndax saa bu nekk rek yoral nga ko bori cant di ni mu la defalagul dara dooleegu dara rek bind la rek wàcc la ci kaw suuf si dafa ngay doomu aadama waxuma la nga def la ab julit booba rek nga ko war a sant ci loola rek cant gu jeex goo xam ne mën nga cee jaxas ak dund mu boole ci nag di la dolli nag boo ko sant ci loolu mu dolliwaat la boo ko sant ci loolu mu dolliwaat la cant googu war a laat ak dolli moo tax def ci sa xel ne damay sant ngir am ndollan sëñ Tuubaa nee na xeetu bokkaale la donte na lu baax la nag ndax yàlla moo ko waxal boppam waaye daraja la yooyu yooyu yi sëñ Tuubaa di wax dayam ñoo dañuy defal sax ah lu tax muy wax nangam te ñen nangam waaye loolu ay darajaat la am na nit yàlla yoo xam ne jaamuwuñ yàlla ngir àjjana jaamuwuñ yàlla ngir sawara dañuy jaamu yàlla ngir xam ne dañoo war a jaamu yàlla képp loolu rek leen tax di jaamu yàlla te du tee nga am ci àjjana du tee nga am ci àjjana waaye jaamu yàlla ngir àjjana dong dama bëgg ajana dong dong dong dong dong li yàlla yeyoo ak lim toll ak lim lim la defal lépp defaloo ko dara lu may rek ngir bëgg mu dugal àjjana waaye lim la defal nag léegi loo ko ci santee yonte bi sallallahu alayhi wasallam daf doon julli ba tànk yi newi guddi di naafila di naafila ba tànk yi newi Seydina Aïcha na ko waaye yow yow yaa rasulullah la ci xiir ci lii yow yàlla nee la la jéggal naa la sa bàkkaar yi tey ak sa yooyu ëllëg ngay julli ba sa tànk yi di newi ne mu ne ko waaw man xanaa du ma su gor afala akunu abdan shakura yàlla bi ma defal loolu baal ma bàkkaar yi tey ak bàkkaar ëllëg ndax loolu yeewul ak cant xoolal xoolal daraja boobu xool daraja boobu bu doon ñun ñi dañu naan tàggin nelaw waaw na man yàlla jégal na ma lépp kon lu may lu may santati yooyu ay ay mbir yu sew la yoo xam ne suñ koy wax ñi nga xam ne dañoo desee am ak dégg dañuy defe ne ah, ak teengal la te du teengal waaye ay darajaat la jaamu yàlla yi dañoo am ay daraja am na ñoo xam ne fii lañ yem am na fii fii lañ yem am na ñoo xam ne fii lañ nekk ay daraja yu mag la yem kon njistal moom lu mat a watandiku la lu mat a lu mat a lu mat a daw la ba ca mujj nag mooy keñaan ki ñaan ñu bari ñu ngi koy wax dafa ne ñaan mooy koo xam ne dafa dafa soxor day dóore wala day nangam waaye déedéet loolu du ko ñaan xubbu zawali ni'matin an muhtadi huwa al musamma indahum bil xasadi Sëriñ Tuubaa nee na ki ñaan mooy nga gis sa mbokkum jullit mu am xéewal gu ko yàlla may nga bëgg mu ñàkk xéewal googee nga bëgg mu ñàkk xéewal googee yow boo ko amut it sax na ko ñàkk yow do yow du sàggeen naan na ko ñàkk sax ma am ko waaye na ko ñàkk rek da def nga la ngay wax kañaan nag fa mu bonee néewaa nit koo xam ne am na amut luy xor yi ci xolam ci luy nuru kañaan néewaa na trop ku ko seetlu ci sa bopp rek xam ko waaye li ñuy bañ mooy nga jëfandikoo kañaan wa min sharri xaasidin isa xasad ki añaan ba noppi di def wala muy wax lu tax kim añaan ñàkk lim yor jëf jë la ñuy bañ la ca xol ba sax yàlla mën na ko koo la baaxut waaye yàlla mën na koo jégale waaye nag boo demee ba mu puus la nag ngay jëf wala ngay wax lu tax mu ñàkk lim yor loolu nag mooy kañaan dëgg wa min sharri xaasidin ay ko añaan la wax de yàlla ma yàlla musal ci ayu ku ñaan ku añaan waaye isaa xaasat su demee ba jëfandikoo kañaan ga nag di wax wala muy def lu lu lu yàq ka añaan waaw moom kañaan moom it na na na rëy doonee loo xam ne moom moo moo moo génne woon iblis kañaan it mooy mooy yàlla gi gi njëkk am ci àdduna maanaam mooy yàlla gi njëkk am ci àdduna kañaan ko waral mooy rey rey mu njëkk am ci àdduna waaye kañaan rek ko waral ñaari doomi aadama ya nga xam ne dañoo jaamu woon yàlla te booba ku jaamu yàlla ni yàllay xamee sa jaamu yàlla da koy lakk da koy lakk ñoom ñaar ñu jaamu yàlla yàlla nangu kenn ka nangulut kenn ka mu ne ko yow lu tax yàlla nangul la te nangulu ma dinaa la rey kañaan kañaan gi mu nangu añaan xéewal gii ko yàlla xéewale nangu ak jëfam moom la ko kañaanee ba ne ko danaa la rey waaw innama yataqabbalu llaahu minal muttaqiin yàlla moom ñi muy nangul mooy ñi ñi nga xam ne dañ koo dañ koo dañ koo ragal moo tax kañaan dafa dafa dàqoo gëm yàlla man nit ki mënut a gëm yàlla di añaan koo gis mu añaan rek gëm yàlla mu woyof na yonent bi sallallahu wax na ko ne laa yajtamiu fii jawfi abdin al imaanu wal xasan nee na ñaar yii du daje ci xolub jullit ki gëm yàlla mu nekkee rek gëm yàlla dem na waaw fu gëm yàlla nekkee it kañaan waaye nee ñaar yi moom du daje ci xolub jullit benn jullit sëñ muslu ci sëñ Tuubaa lu muslu lu jar a musul la ndax ragalu dara waaw yàlla dong la wékki boppam waaye muslu na ci kañaan ni ci ni ci yàlla musuloo wa min sharri xaaqul wasbir bi falax min sharri maa xalaq wa min sharri xaasiqin isaa waqab wa min sharri nafasat ko booleel ay yëf yu bari la ko booleel na ne wa min sharri xaasidin isaa xasad muslu ci ayu kañaan wéeru ci yàlla jox yàlla sa bopp ngir mu musal la ci sëñ Tuubaa moom it noonu la def wa moo mu isan la naa min sharri si xasadin yàlla yàlla nga musal ci ayu ku añaan waaw waaye moo dem ca masalik daal ne ah nazman yarumu xaala kulli mubtadi wa xaala muntahin isa lam yaxsudi nee na sama woy wii di masalikul jinaan mën naa yéwénal mbirum ku ne waaye su añaanut ku añaanut rek mën naa yéwénal sa mbir moo xam na ngay door a tàmbule moo xam na nga àgg ci ku añaanul rek mën naa yéwénal yéwénal sa mbir masalik mën naa yéwénal mbir ñépp ku àgg ci yàlla ak kuy door a tàmbuli ñoo ci yam waaw mu daan nga ne ko lu tax loolu mu ne isil xasuudu laysa santifaai bi fadli man asara bi ittibaai bari na nit ñoo xam ne li tey ñu jariñu ci nitu yàlla mooy kañaan lu tax yàlla di ko maye lii lu tax mayu ko diw lu tax mayu ko diw lu tax mayu ko diw loolu yéefari daa dañu ko wax yàlla mayee nit dara ñu tax mayu ko diw lu tax mayu ko diw lu tax mayu ko diw te yàlla moom mooy séddale boppam waaw kon mu ne aazana allahu min alxasudi wa kulli mubxidin wa say joxudi yàlla nanu yàlla musal ci kañaan moom da sañ ci waa mottale mottale bayit waaye lan moo koy saafara nag mooy di ci muslu yàlla nag xuloosu bi rabbil ko jàng di jàng sindidi di jàng fépp foo xam ne gis nga fa ay bayit yoo xam ne dañ koy wax ngir mus mucc ci kañaan nga di ko jàng nga di ko jàng ba ca des mooy ngay nafar di muraajaa tëkku yi nga xam ne yàlla tëkku na ko ku añaan ak li wax ci moom lépp ci ëllëg ak ci tey nga di ko nafar waaye nag ngay fexe ba wattandiku foo xam ne kañaan mën na la fa jóge lu koy sabab rek nga wattandiku loola lu koy sabab ci ay wax wala ay jëf am na ay jëf ak wax yoo xam ne day day sabab kañaan lu mel ni mer mer day waral kañaan moo tax yonent bi na laa dab bul mer dénk ma la ko waaj a wax na ko dénk ma yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénk ma mu ne ko laa taxadab mu ne ko dénk ma mu ko laa taxadab dénk ma laa taxadab bul mer bul mer mooy bul jëfandikoo mer parce que mer moo yóbbu nit ba yóbbu ko ci mbañeel mbañeel moo yóbbu nit ci kañaan mer mu yàgg loolu lay def wala xeq da ak mbañeel mbañ jekki-jekki bañ nit rek comme ça waaw defu dara waaye daal neexu la mbañal googu bu yàggee day jur ndax ki nga bañ boo ko gisee muy am ay xéewal da nga yéene mu ñàkk xéewal gi moo tax mbañal bon moom it beneen ba ci mooy tongoo tongoo mooy mooy bàyyente ànd ak nit ba yàgg nga tong ko dootoo ko nuyu dootoo ko jege dootoo ko def dara te tegoo ko fenn bu dee fa nga ko teg moom dangay ngay ànd ak nit ki mu nekk ci ay mooy yàlla wala muy def lu neexul yàlla nga bàkko loolu moom dañ ko war a def waaye ki nga xam nag loolu lépp dalu ko da nga jekki rek tong ko ndax da ngeen a xuloo wala da a def làngam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn sañu koo def mbokkum tam lu ëpp ñetti fan lu ëpp ñetti fan rek sañoo ko def sa mbokkum jullit tong ko ñetti fan yoo xam ne xëyoo xëy ne ko asalaamaaleykum nee na ku njëkk a wax sa morom asalaamaaleykum rek yaa ko gën ñaari nit ñu tongoo nee ñetti fan la ñeen may yëdda bu weesoo ñetti fan yi rek ku njëkk a nuyu sa morom yaa ko gën kon moo tax tongoo day indi mbañeel te mbañeel day indi day indi kañaan ak ñeetaane itam day indi kañaan ñeetaane ñeetaane mooy nga gis nit ko am dara nga bëgg ko waaye sax bëgg mu ñàkk ko waaye da nga koo bëgg rek yow yow daal kii daal am na oto bu rafet am na kër gu rafet bëgg nga kër gi lool boo sañoon am ko waaye ñaanoo mu ñàkk ko nag loolu nag ku ko yàgg di def te amoo la ngay ngay wut boo wutuwut ña ko am da nga leen da nga leen moo tax bari bari looy ñeetaane amul amul solo ak ñàkk ñàkk ci boppam dara waral kañaan waaw ndax dañu koo xam ne da ngaa dend ak ñu am ñu bari te lañ ca war a def lépp waruñ defuñ ko ca lañ la war a dimbali dimbali wuñ ca bu yàggee te yàlla defaru la da nga leen di añaane di yor moo tax ñàkk baaxut di daa war a ba am loo xam ne du ñëwee kenn du gis yi fi kenn lim am da koy doy ba du ko añaan kenn du yooyu kon ay mooy ñett ñeent yooyu nga xam ne moom ñépp dañ ko war a takk mooy alkibru rëy naw sa jëf kiñaan njistal ñeent yi ku fexe bu mucc ci saxul set na wecci li leen lu baax lu ne mën na caa ñëw lu bon lu ne it mën nañu ko jeg yàlla mën na la ko jégal ndax yi moom mooy nday bon boni foofu la nekk te néew na ku ca mucc ci yépp wala ku ca mucc ci benn ku ca amul benn kon kenn ku ne la nga am liñ liñ gis ci mujtama bi ci suñu société bi liñ ci gis ci ay jikko yu ñaaw gis ci ay jëflante yu ñaaw gis ci ay naqar gis ci ay bokk yu tas gis lépp ñeent yi ci lu jógee benn muy rëy wala muy keñaan wala muy njësal wala muy yéem sa jëf kon kenn ku ne da nga war a xam feebar yooyu da nga ko war a xam fas yéene saafara ci sa bopp ba génn ci sa bopp suñ saafara woon suñ bopp ci yooyu rek mu tama bépp cat li ñuy jàmbat naan ay problème économie lañ am ay problème social lañ am ay problème politique lañ am problème yi am dëgg dëgg dëgg mooy problème suñu xol yii moo am problème moo tax suñ jikko yi mel ni mel ñuy jëflante ay jëflante yoo xam ne ab société mënu caa avancé benn yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa jërëjëf Cheikh Mouhamadou waxtaan wi am na solo lool ba solo si foo ko takk rek weesu na ko fim ne solo si eh, tax na ba waxtu wi moo ko tënk lool waaye ñu ngi koy kii bu baax eh, muy waxtaan woo xam ne jullit bi war na ko eh, soxlawoo lool ci ak dundam ndax daa aju ci xol te nit ki moom xol rek la am xolam su baaxee baax na xolam su jagut jagut moo tax euh, war naa def kémtulaay kàttanam ci jagal xolam boobu moo tax sëñ bi euh, day wax ne feebaru xol moom dara mënu ko saafara boroom bu xoolee ba feebaru xolam boobu dem ba waxtu faatoom ñëw nee dara du ko saafara lu dut saafara suñuy wax la saa ximaayatul xalbi daa un la dawaa laha illa duxuli la sa maxwaala si salima kon ñoo ngi sant bu baax ñu ngi doon topp ci eh, ci xarala yeeg yëpp rek ak ñi tokkoon ci jotaay bi di eh, sant bu baax a baax MK TV bi nga xam ne ñoo jàllale liggéey bi tey eh, sàkku képp koo xam ne da ngay sàkkoo laaj nga jaarale ko ci numéro bi 78 682 28 28 waxtu woo ci envoyé message incha allah bépp laaj yoo ci des na ko tontu kon waxtaanu euh, suba wi ñu ngi koy amal ci waxtu 17h30 ki koy def mooy almufattis euh, Serigne Sam Bousso ci tomb bi mooy daayira yi ak seeni euh, solo siñ am ak seen i taxaddiyaat kon suba incha allahu taala ñu ngi leen jox dikk bu suba ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.